Assalamualaikum. Ini menjadi yang boleh kita xanaa fexe ba liggéey bi mos waaye dafa am kàddu yoo xam ne ñu ñàkk secrétaire dañ koy yokk daal fekk bu ko defee liggéey bi yéen ñëpp la ñu su ma waxee yéen ñëpp nag ñaari gàncax yi su xaalu jaay ak bële ñu donc su ko defee ne ñuy tànn kenn pour wax ci kàddu gi nekk xale Moussa Ndiaye jël kàddu président conseil départemental nekk Moussa Koyate mi nga xam ne moom moo indi affaire yi après moom it moom su pada kayak nanya yang sama dulu dia kayak saya tegas apa eh atau hari ini Enggak, saya tidak. Saya tidak bisa. Misalnya, bahwa beliau, saya dapat mandat ñu àndal waa xam naa ko Aliou Ndao xam naa ko ak ñaari yoo xam ne kenn ku la kenn sant di nuyu ñu jigéen ñi nga xamante ne bii ñoo fi dëkk ci ñaar dëkk ak Kara yi Ndiaye ak seen boobu nga xamante ne bii moo ko doon organisé leen wax daal leen ak jàmm leen wax ni dëkk bi mel noonu yaakaar naa ni seen dëkk la suñu dëkk la waaye suñu dëkk la commune Paata ci meeru kon ci dëkkal bi kon ci dëkkal ngeen ñëw ci ci département Moussara fekk ci conseil départemental de Moussara kon tam ci dëkkal ma ñëw ma ngi noonu li ngeen ci dox yàlla doom lu leen ji doom lu leen ji ngeen cee dox yal na dongoo ànd ko lu baax lu ànd ko ànd ak yéen ànd ci ñun def dongoo mbafet dëkk bi daal mais dëkk baa yi noonu sa dëkk yaa ngi ko def xayawal rek lañ bëgg ko ci commune bi bëgg ko ci département waaye nag bëgg ko ci ah dinaa jàllale la man sama benn mission parce que moo dama fi nekkaat ndax en vrai ngelaw kay jënde ñun dem naa nekk chef de village semence dafa bi dafa am ay douche douche boo ci duggee tey doo mën a dem tamit dafa sax yàqu ko bëgg na nit ñi ci dimbali nag ñun ci jógee ñu defar ko waaw ak suñu porte bi bu tëgg daaj ko nag ah bëgg na nit ñi ci dimbali parce que dama ne woon sax bu fekkee ne dañ ci bàyyi matériel dañ ko def ko def porte bi bu tëgg ak ñu mën di laaj loolu daal dama koy ma doole defar jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di dalal suñu gan bu baax dana jël suñu ci loxo président conseil départemental Moussa Kouyaté Euh, moom ak délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu yàlla tey teew fii tey ci Diender euh, ak Aly Diop mi nga xam ne mi ngi ci nekk wax dëgg yàlla président domanial bu commune de Paral ñu ngi di nuyu di groupement baax baax di gën a sant président ci formation bi nga xam ne indi na leen ko fii yéen waa formation bi yéen a ko àggee dana ko def fii dana ko def Kànjoor muy la am solo toujours nag li war dox naan ki may jël ak ki lay jàngal ni ngay nappee damaa gën ne ngay nappee rek moom moo ëpp ci yéen ci yow ki may jël ki may jël moom boo ko gisatul doo am jën bu ngeen xuloo bu dee ku mel ne sama kalaay xay bi dañuy fayantoo dootoo am njëriñ waaye nag kii xay bi dafay ñëw moom ne la kaay ma jàngal nag ni ñuy nappe moom bu ngeen xuloo nga dem nappe ko moom boo ñëw ne damay indil waa Diender euh, doonte xam ngeen mais mu ne damay yooyu encore yokkaat seen xam-xam. Hmm? li ngeen xamul woon ñu xam ñoo ñu ñu xamalaale leen ko boole ko ak yéen ngeen li ngeen xamoon bu njëkk kon loola vraiment président dañ la ci sant euh, di yokkaat encore que ci formation yi nañ ci commune Patar ba léegi ñu ngi la ci gën a loxo bu baax ndax ñun ku ne xam ne département bu sa xëy na dëkk la boo xam ne amul commune mais nag président ñi ngi ñaan ñu dugg ci wàllu formation mbayum jën yi war nañ cee dugg bu baax. vraiment ñun commune Patar soxla nañ ko ñu ci def ay bés. jamono wax dëgg yàlla yooyu di baax na formation boo doon wax jigéen ñi ci moom bi moo ñëwul projet boobu mooy formation bu ñu wax def ko xam ci wàllu saabu wàllu a de javel wàllu madar vraiment loolu sama incha allah fan yii bu nawet wàññi ko noonu wax naa incha allah président euh, engagé wu si su parce ne a utile te bëgg naa cee engagé wu euh, bu baax a vraiment ñu ngi lay sant ah, ñu ngi lay naa sa gan fii bu baax a baax am nga sa vraiment am mbégte ci teew bi mu teew fii euh, bu baax baax nga xam ne jamono ji ñun ñoo ko bokk ñu fekkee te yàlla nga nekk tey bu sax si liggéey nga ñëw sama xam-xam bi ma yore dama ko yéene wala département bu sax loolu yàlla ngi ñaan kër boo jóg yàlla nekk promotion bu mag ci yow yàlla moo tax yàlla nekk yàlla euh, defar xëy na rek may may jéggalu ci tontuwaale tuuti chef de village ci doléance bi waaye nag gis nga chef de village commune bu ñëwee defar waa dëkk bi nag wax dëgg yàlla ñoom ñoo war a am na yu seen yoo xam ne jur du wax ay commune ay porte yu am cellules yu am problème hmm? ay euh, toilettes kon xam ne toilette moom boo ko defee mu def commune li man mooy ñu tabax parce que nii ñu muré leen nii boo doon seetaan bu mur bi yàqu. yéen waa Jalle yéenay ña mu commune am ñëw na ñëw na def sacrification def li mu def li mu war a def su dara desul nag loolu ñu solution yoo xam ne xel ni nii hmm, wax dëgg yàlla loolu dëkk bi war nañ ko mën a mais bu doon fekk bu ñu doon tey jii bu bu ñu defoon délégation dinañ la xaaree ah dañoo bëgg nga may ñu deux mille francs su dañoo fay séddu bu yàqu xaaree bi doomu dëkk war na ko mën a jaral wala xaaree mën na gis ah, jeune bi jeune bi nekk na indi cent francs cent francs wala jeune bi nekk na indi deux cent deux cent ñu jéem a defar lañu mais ki lay defaral sax su gisee yow mu lay defar toppatoo ko sax day tayal chaque jour mu lay indil mu mu mu lay indil day seet dëkk ba nga xam ne ñoom bu ñu leen indilee ñoom dañuy daañu defar kon mooy kon kële ñële kër ñoo defar te mi ngi mel ne formation bi rek bu ñu leen formé ba pare. ngir yemale ko fañ leen fañ ko fañ leen ko formé pertement te. conseil départemental bu jëlee engagement indi leen formateur ki leen moom it ñëw ëllëg mu jaar jëndee gisul li mu gisul ngeen ci yëngu wax dëgg yàlla danaan moom man bi zéro la waaw donc mais nag su ñoo fekk yéen li leen formé ngeen gën cee góorgóorlu mu ñëw fekk muy dox moom day la am na yeneen formation yoo xam ne day sawaraat indiwaat ko fii mais bu fekkee ne ñëw ne li leen formé tey ji ngeen sàggane ko ba tey na ngeen ci war a yëngoo defu leen ko noonu ëllëg ah foofu de présenté CPD mais jot foofu jot yóbbu day dem mu ci affaire formation day dem sax ba ñuy yàqal ci commune Patar parce que day mujj ci day dem ci yeneen i communes yi di faire kon ñu leen dénk ne formation bi yàlla ko yàlla ko yàlla antul na ngeen ko góorgóorlu na ngeen ko fonk comme am siib na ngeen ko fonk waaw hmm? bañ a xeet xamuñu Sénégalais lan moo ñu sonal mooy xeet boo gisee tubaab yi suñu yokkee benn dërëm. ñoom dañuy xeex dërëm bi loolu lan moo tax yokk léegi boo ëkk ne tey jii nii junni nit tey bu yokk tey ci ceeb bi ñu ne tey yokk na ci gën dërëm junni nit dem jënd kenn ku nekk fukki cuure ceeb xool dërëm dërëm loolu ñaata la day dem ci ay millions hmm? kon nañuy moytu di xeet tey li ma wax rek bitik lañ njëkkee ci taabal bu dee bu dee bu njëkkee ci taabal mën naa àgg ba ci magasin waaye bu nekkee ci magasin mën na dem ba mujj nekk taabu kon vraiment ñu ngi leen di gën a dénk loolu bon euh, chef de li nga wax xëy na fu mel ne bi mën nañ des entretien euh, moom mën nañoo ñëw xool ko defaraatale ko waaye wax dëgg yàlla entretien moom wax dëgg war nañ cee mën a góorgóorlu ci entretien toile bi baax a baax jàppale ci euh, xale yi surtout directeur école yi war nañoo xam ne bi ne tey jii lii entretien yoo xam ne boo doon calculé tey ay vingt mille franc wala ay dix mille franc ay cinq mille franc moo yu mel noonu moo jëm di di sollicité ay euh, commune wala sollicité ay départemental yi ñëw di la euh, euh, ñoo war a gën a mën lépp lu leen indil ngeen fonk gën koo di ko di ko toppatoo di ko defar gis nga ne buntu école bi tey jii faax na tey dama lijjanti si coono ciment ñëw gis nga tey jii nii fer bi day daal di ko def seet bi yóbbu suudal bi mu suudal mais boo xoolee ba buntu bi tasaaroo nga def ñaareel buntu soo yore nga ko ne ah bëccëg def laa koy def amul. loolu xëy na président bi aussi lañ jàllale rek ñu koy jéggalu ci lu dégg na yox bi mais nag dañuy sottante ñu doon ay xalaat rek mais dégg na ko incha allah ci kàttan yàlla dañ def suñu kéem tolluwaay kàttan incha allah dañ leen ko defal mu defal la mu defal la dëgg dañ la boole xaalis mu defal la dëgg après ñu xool ñu mën ci jàppee incha allah ba loolu mën a jël président rek déglu ñu message moom ci yàlla kii seen daal ndax man dafa daf ñoo lan foofu rek moo tax ñu euh, ngi baal ak ñëpp vraiment di baal ak ñëpp euh, di leen jaajëfu asalaamaaleykum wa rahmatulah léegi ñu ngi su ko defee rek donc président boo ko defee. président bi fan. maire comité. maire comité waaw. man maire comité. asalaamaaleykum. wa rahmatulah ñooñu ñun ñëpp jiital ci nuyoo bi monsieur le maire jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu nuyu président du conseil département mu yóbbaale ñun ñëpp ñu nuyu soxna si biir bu taal ñu nuyu suñu borom dëkk Aliou Diaw. di nuyu xaalis nit di nuyu suñu mbootaay bi suñ ginnaaw bàyyiwuñ kenn daal di am kontaan bu baax nag ci di ñu mutaat waaye di defar tey ñun dañoo ko bëgg tey nag la déedéet bu baax waaye tey la ko yàlla dogal wax dëgg ñun ñu koy rafetlu baax nag nañ ko yàlla defal yàlla defal ñu ci lu lu a duraa ci yàlla defal wax yàlla am na solo torop waaye da di ko bëgg waaye tey la ko

di nuyu tan ñu nga xamne mo ñu dalal ci dëkk bi di chef de village bo sant bu baax di ko gërëm di nuyu suñu rak suñu xarit bambaloo xamne agent la tamit ci conseil départemental bu tass bu bokk fa nek di liggéey di nuyu Serigne Aliou Diaw di responsable domanial comme ko monsieur le maire waxee ci commune patane di nuyu tamit ñu andal suñu yaay suñu xarit mère fan bu Sowal di and ak ñun ñu jàppale ci liggéey sama xarit bi di di fekk moom tamit nekk conseiller départemental di and ak ñun bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu koy def di sant bu baax di gërëm monsieur Sall nekk agent ANCAR ñi nga xam ne dañuy jàppale baykat yi ak soxna yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu maraîchage ñu ko waxee mbirum formation bi rek mu sawar ci lool ànd ci ak moom naa ne sax ñu ma gën a soññ moom ci la ko yéen waa Jandeer soxna yëpp ma seen fay ndax mën naa ne Jandeer laa njëkk a recevoir ñu wax ma mbiru seen périmètre maraîcher wax ma mbiru teen bi soxna suñu wax fàqkan bi duma fale rek daanaka ñëw na ba ci ma wax ma ko fekk na ma conseil départemental wax ma ko ànd ak délégation aussi sama kër Gossas wax moom ma ne ko danañ ci def suñu kéem tolluwaay kàttan ànd ak yéen jàppale leen mois de janvier bii passé rek ñëw na conseil départemental wax moom waaye boobu ñu ngi wàcc élection présidentielle réew mi nekkoon ci ay xat-xat ak i jafe-jafe moo taxoon daf ñu war a def formation mais booba lañ ko programme woon comme ni ko monsieur le maire waxee série de formation yoo xam ne bëgg nañ koo defal. jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci département ndax Gossas dëkk la boo xam ne mbay ak càmm la baaxoo ndax dëkk bu nekk am na ay atu am na ay opportunité waaye Gossas département opportunité bi ñu am mooy mbay ak càmm kon jigéen ñi nag bu ñuy yëngu ci wàllu maraîchage baax na nga dem fekk leen xool li ñuy yëngu lu mu demee wax na ko léegi am na koo xam ne contacté nañ ko pour wàll pisciculture lu ñuy wax mbayum jën élevage jën am na koo xam ne contacté nañ ko ba pare na pour ñu defal ñu formation bi ci département bi Gossas bii tamit ñu xam ne ñu ngi koy def tey Diender bëgg nañ koo def dans toutes les communes même la commune de Patta dina amaat yeneen village yoo xam ne dinañ ko def bu neexee yàlla comme ni ko la maire buñ ci jublu rek ak seen man-man ci wàllu marafat ndax neex ki nga da ngay fekk ko mu nekk ci man lii mooy sama projet lii laa bëgg nga jàppale ma ci ànd ci ak loolu moo tax ñu sawar lool ci ñëw fii fàttukat nag ko ko fekk ma ko ndax li ci bi ëpp moom ci ñu ko dox la bokk mën naa ne sax eh, mooy premier élément déclenché moom moo ñëw sama kër ñëw conseil départemental wax ma ne nañ leen jàppale ci mbirum tool bi nga xamante ni yéen a koy bay fii ci Diender kon lépp loo xam ne conseil départemental mën na ko ci wàllu formation jàppale na dinañ ci ànd ak yéen ba mu jaataag ndax li fi tek moy and ak askan bi ci seen bëgg-bëgg ak ci seen ay soxla te lii monsieur le wax na lepp ci way ñoo faral di wax né nit wala ko koy jangal wala ko koy may jël jangal ko ni ñuy mo gën ndax boko jangalé ni ñuy rek mu dem dana mëna autonome dana demal di jënti da koy jox jël sans suné heure fa wala heure mom mu am ñun nag li ñu bëgg mooy li ñuy wax autonomisation des femmes fexe ba jigéen ñi mën a demal seen bopp te loolu ci njëkk mooy formation bi nga xamante ni ñu di sant bu baax di leen gërëm ma ñëwee dinaa jox jigéen ñi ñu jëndee café ñu leen leen allah wala monsieur Sall maa ngi sant bu baax di la nekk xam na ne ANCAR. am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci Sénégal ci wàllu mbay ak càmm man ma bokk foofu demoon fa réunion ma waxtaanoon na directrice bi nga xam ne moo dirigé woon ANCAR di Mariama Dramé maa ngi sant bu baax moom tamit di ko félicité bu baax ma waxoon ko de bu département de Gossas agent ANCAR ya fa nekk ñu ànd ak ñoom ñu jàppale ñu ci wàllu formation mu ne ma woon soo demee nañ leen contacter. di waxtaan ak ñoom di xool lu leen di accompagner ci formation bi ma ñëwee wax ko ko rek moom daanaka dafa bàyyi yitte yëpp ànd ak man ne ma foo bëgg ci département bi rek ma am lu ko ak yow bu baax ñu wax nañ ne participant yaa ngi nii ñun suñu yitte mooy fexe ba mbay mi jëm ci kanam comme ni ko président de la république waxee son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ndax xam na ne Sénégal mbay moo ko yor Sénégal ko dem féetale ginnaaw mbay bi ak càmm ko defee rek ñu nag lépp loo xam ne dañ koy def dañ ko mbay ak càmm dinañ bu baax asalaamaaleykum mbooloo maa ngi lay yar kenn ku sa tam di nuyu monsieur le maire ci bi ci am di nuyu chef de village di nuyu suñu partenaire conseil départemental monsieur Koyaay di vraiment jotaay bi di ko wax ne comme ni mu ko waxee noonu la ñoom ci sunuy kilifa lañ bokk parce que bokk na ci conseil d' administration ANCAR man dan la laa daanaka damay doog am at ci gox bi ma ngi newoon commune jawle ak Mbella Kajaw am na ko ci newoon nak mais ko fi dañ ko affecter affecté jigéen ci wax moom Ndiogu Sagna xaw ma xam ngeen ko mbir na ANCAR la legi man maa ñëw pour remplacer euh affecter ma ci arrondissement waajur ñetti communes yi commune Paal ak commune Waajur ak commune Ngendela ANCAR comme ni nga waxee service technique la bu xam ne gouvernement Sénégal moo ko créé mu gunge béykat yi ci seen yëngu-yëngu ñu dénk lu ñuy wax wàllu nag demee si mbay càmm ak nag euh, euh, xam naa li waral doo feeñal daanaa fi romb na gis périmètre bi mais yàlla dafa def fii affecté ba léegi xam nga agent ANCAR dañ leen war a jox moto moyen de déplacement mais yàlla def na may ñëw boobu sama moto dafa paanoon ko sax fa la ma nekkoon ba léegi ama amaguma moto moto xam nga moo yombal nit ñi ci seen yëngu-yëngu waaw seen déplacement donc laa yore sama oto personnel la donc xam nga ne la mën a dugg donc bu fekkee ne moto yi am na rek incha allah bu ñu defee formation bi suivi beeg yooyu yëpp dina mën a yomb parce que loolu mooy suñu liggéey jàppale leen ci seen yëngu-yëngu waaw defee nit ñi gën ñoo xam ñu dugg ci àll bi bu ñoo xam bu que nit aussi euh, il ñu xam ne lii ak lii ak lii. ko fi nekkee man leena a ci fànn boobu comme ni ngeen démé ko conseil régional conseil départemental wax fa seen doléance bu nga xamone ne aussi am ngeen agent encadre boo xam ne ñu ngi aussi pour loolu je pense que mën ngeen bañ man ngeen bañ ak sax foofu ñeen ñew directement rek ci agent encadre bi nak ko walu ñun wàllum mbay noor ci lañ nekk dañuy bëgg ñu jàppale boba yi hmm, comme ni ni ko défé ma nit ma ñëw it jàpp parce que lool mo ñu fi tek en réalité donc en cas service technique la pour gunge baykat yi ci seen yëngu yi kon loolu mooy suñu liggéey dañoo wo ci suñu ligé mais xam nga rek comme service technique yi aussi en général il faut ñu soxla ay partenaires pour mëna def yenn activité yi ah parce que lii yëpp di ko yombal mooy il faut am ay moyens financiers yu ko mëna jappandal lolu nak nag partenaires en général ñoo koy indi bu ko defee ñu lëkkaloo ñu leen di jàpp ci pour mbir yi mën a jëm kanam donc ñu ngi wax ne rek ñu ngi gën a rafetlu waxtaan bi di leen sant di leen gërëm parce que comme ñu ngi gosaas ñu ngi looje sodewa naanaa gis ay femme yu fiy jaay ay naanaa boo leen laajee ñu ne jënder la jógee amon nañ ne yeen nga yëngu ci ci mbir bi mais comme ni ko waxé rek ñak moyen de déplacement moo tax seet wuñ leen mais xam nañ ne yi fi am tolu naa ko yëpp ak toolu maraîchage ci liggéey xam nañ suñu nek mais moyen yi amagul jàppandeegul pour que fenn fu nañu mën fa dem présenté wu ñu mu mën a jëflante ñoom comme yàlla bin ko bi ya xam nañ ne bala yàgg donc xëy na peut être moyens yi gën a mën di dafay ñu mën continuer def liggéey bi normalement donc di sant ñepp di gërëm ah. ñepp ah, di wax ne daal ah yalla li lii ndorte la rek li ci kanam mooy eh, rawu li bët soobee yalla incha allah dama bëggoon wala ñun ñu ñuy ma félicité bu baax le maire de la commune de Fatick le maire Diouf Thiam ci liggéey bi nga xam ne ay dans la commune de Fatick bi ñuy ñëw sànq rek bi maa ngi daal ba ah, seen école bi da ngeen ko clôturé mu ne ma te bariwul looy dem ci école yi nekk ci àll àll yi fekk ko ci école de clôture man jàngalekat laa woon jaar naa xam naa bu baax li nekk ci école yi surtout yi ci kaw école yi nga xam ne ñoo nekk ci biir taax yi suuf loolu yooyu la ñu clôturé ndax dañuy xaw a jage tali beeg yu mel soo ñëwee fii nga gis ne école bi clôturé loolu moom moo am rôle bu rëy bu ci joué dañ baax. lépp lu ñuy def jëmale ko ci jigéen ñi dañ koy ànd ak moom. ñuy jël ay moulin à mil di ko yóbbu ci dëkk yi moom lañ ci ànd ndax ñu ñëw fekk ko mu nekk ci loolu di dimbale jigéen ñi bu baax di leen jox ay moulin à ñu ñëw ànd ci ak moom loolu ñuy fexe ba ndox di dem ci yëpp dimbale jigéen ñi ci seen liggéey bi nga xamante ni ci la nekk tàggale jigéen ñi ak root ci teen wala tàggale jigéen ñi ak dëbb wala bojjag yooyu moo tax ñu def seen wàllu thème bi nag dégg naa njàmbat li waxoon nañ ma ko bu yàgg ba ma un technicien yaakaar naa ñëw na fi ba wax ma li nga xamante ni moom la ñu war a def pour ñu bu neexee yàlla ci ay fan yu néew ngeen gis ne dina teen bi comme na mu naa ko jël te joxuma sama yaay ñu àndal ndax moom tamit mën na wax ak jigéen naa ko jox rek sànni ci gàddu ñu def. maa di nuyu dama koy beral nuyu ko ko su ma sonnoon ko saa moo tax moo ma jàppale moo ma dëgg. fu ma nii loolu laa nekk. monsieur le maire ci bi ci am. sama càmm ñoom seen liggéey bi dara taxu leen a jóg pour dimbali waa département Gossas ko ci ngir politique dañ koo xool ngir di ko jëf Moussa Fouad da jëf te newuloon ci ñëw fii seen liggéey la yàgg na man leen di ñaanal mooy lii ngeen xam ne nii suñu ngi lay ñaan bi nga jigéen ñi yàlla moom. wax dëgg yàlla leen sant xam nga waaj dañu leen moom liggéeykat dëkk yi ma a man ngeen a man ngeen moo kat ba ñëw formé ñu baax loolu lépp day bay rek di dem luy law nag moo gën a luy luy ko daal kon

kira aku tulis tulis korea kan yang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salaamaaleykum ñu ngi leen di leen ziar. bu baax na ci ñëw ndax diggante bi gàtt na gàtt gàtt na gàtt dañoo def déplacement bàyyi seen liggéey nekk am jëndee tey. sama góor sama xarit ma nuyu baax na ziar dañuy conseillé di jaajëfal baax jiw bu baax ma sama loolu bopp ñu ñaan bu baax si àll bi gis nañu bu baax li mu dañuy woon na ñu bu jëndee yàkkamti woon na. mais naa suñu gisee tey la bu tey ndax ñoo nañ ba saala nañ ba ci saalam toog jàmbat bi yitte suñu yitte mooy yitte waa jënd rek moo ñu ñor groupement jënd. ñu ñëw ba ñu am formation bi ñu ñu kontaan lool nag am jigéen bu rëy ba liggéey seen yàlla weer yàlla gën a kawe suñu doom bu fas yéene nañu liggéey ñu liggéey rek lañu ko ma jàll def na ci faafam bu baax na ndax moom tam doon dëgg yàlla taxaw na am taxawaay bu baax na mu am ci dëkk taxaw na bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa yoon la ko bett ñëw na sob saala yoon yoon yoon ñu ngi ñëw ni ko def nañ délégation yi mu xam ne àndoo bul ko makan nga ko makan wala bu ñu ko deug leen ko ñaan ko ne ko sey la am ala ngi daan wax ndax jot na ci ñaan ko wala nit bu yakkan dara la nit nit dafa jeex boo ko ko nit la ci ko ak ñepp ndax yaaka na ci la liggéeyal jariñ waaw daal yaa ngi yàlla noppi waaye nag nit neex mu gën ko bàyyi la xam ko bu baax a baax bàyyi na la ko damay dégg bëgg na tool bi dëgg la waaye tool bi tamit ay matuwaay ay matuwaay bi lépp dañuy fekk waaye mën nañu daal ñoom ñu xaar ñu gën a waaye comme ay machine wala courant beeg yëpp. ndax liggéey liggéey dafa mel ne que léegi ci wéru léegi. kon léegi dañu lay jël wala du ko yóbbu ko xaar. nekk na loo xam ne réer na jaaw daal. dañ ci gën a jàppale bu baax a baax a baax dina yëngu bu baax suñu xol suñu biir xol ak leen dugal ñu ñëw tey formation dëgg la xëy na fekkoon ci liggéey nag nga xam si solo yi làmb dañu làmb lii sa jigéen sax joxoon na ma moom gën gaa ñëw moom moo ci commencé woon muy kii moom laa daan gën a wàcc sama yeneen formation bi ma naan jaayoo ba ma nuyoo waxtaan booba la Ibou Thiam doo ko toog si ñoom ma demal man ko Ibou Thiam sama càmm laa faa mun ma demal ci conseil bi rek demal. yàlla ma ko si biir la de yàlla ma ko du tey waaw ñu ngi la daal formation liggéey yooyu yëpp moo si nit ñi ñu dem ndax mënuñoo dem Dakar moo ñu def sant nañ bu baax daal. par ko ngana koy bang dama cee sonn dem ba nëgë ne ak ak ak woote am nañ ko teew fi sa bopp ñu formation waaye loolu moo tax ñu bu leen gisee ñu ñu mbind bi bokku ñu mbind ñu ñëw mën naa nuru leneen waaye bi bu leen indi nee na woo ñu ne ñëw réunion moo tax ñu ñëw waaye fii am na ñoo xam ne bokku ñu ci bind xam nga ñu la jaay ko ñu baax ba tàmbi bar na xam nga rek buñ joxee kàddu il faut nga wax Fatou Kane moo ma jox ay kàddu moo ma ko batale moo tax ma yëkkati sumay kàddu bu ñu woon lool sax bàmbalu bi jar na ma ko ndax jox ma jàng ci Musadis beautiful Gossas la dëkk Musadis beautiful Gossas la dëkk Musadis beautiful Gossas la dëkk

Musa so I do fen, do en, do sati When you turn it, drop them When you do it, they not it My side is beautiful Musa's like the king Musas, Musas, see Musa, Musa, I my side. I love my town, my side. sama papa sama yaay jabar ak doom ñu ngi sama xarit samay maam am di jàmm ñëpp ñu ngi li ma xam ak li ma am li ma ko may mooy fu mu mën a nekk àdduna sama xel ak xol yëpp ma ngi du ma mës a manqué ñaan maam Thierno Diaw Baxa sëñ Saam ziar maam daam sëñ Ahmad daana Ndambe xam nañ li ñu am du ay fo sëñ ko asaalo jërëjëf sëriñ Moodu Njaay ak sëriñ Asan Lo dëkk Maodo Malick Si weer de seex bi jolle na ña seen bi